بسم الله الرحمن الرحيم مباكي كون يدلسي يدلسي كي سنو نتالو بند كي تزاو دس جغار يجي طولون تي بنتو بسرين بي جانغلي نغم كون ديمبو يجي طولون تي بابون في أقسام الدين أقسام دين ربنا الإيمان وبعده الإسلام والإحسان إيمانكم يا أيها الصغار بمن له الصغار والكبار أن تؤمنوا بالله والملائكة وكتب هذه سالك وسالكة قبل أن يمنكم دم مباح نكون نيغمي يالا سوي برام إن ورقم إن ورقم تيمم يب وين غمي يالا كو أملا أكي ملاكام أكتيري mooy tilim waat ci yonentam ak yonent yi ci seen jëmmi bopp bu koy gëm gëm bis gëm ab dogal mu ni wa yawmihi ak bisam ba al axiri bay aji mujj moom itam dafa bokk ci lu ñu war a gëm te moo di bis bu mujj ba muy bis penc nga xam ni ci la suñu borom di dajale jaam ñépp kenn ko ne moo àtte ay mbiram war rusli ak yonent ya alkiraam yi ñay way tedd dafa bokk itam ci yin war a gëm mooy gëm ni suñu borom yónni na ay ndaw ñu tuddi leen ay yonent ñu ñëw ci bindee fii di leen leeral li suñu boroom digle ak li mu tere wal xadar ak dogal ba alladi ba nga xam ne yajuudu dana tabe bil ci càkkutéef la bokk na itam ci yin war a gëm mooy ab dogal gëm ni lépp loo xamante ni am na rek suñ borom moo ko dogal lu mu mën a doon rek ci lu nëbbu ak ci lu feeñ waaye nga gëm ni suñ borom moo ko dogal yooyu mooy juróom benn yin war a gëm te moo di gëm ni yàlla am na gëm malaayika yi gëm yonent yi muy ñett gëm téere yi nu wàcc ci yonent yi muy ñeent nga gëm bis penc ba muy juróom nga gëm ab dogal muy juróom benn muy juróom benn kon yooyu yun war a gëm la mu ni imaanukum seenu gëm bi rabbikum ci seen boroom tasdiixun moo di ak dëggal bi annahu ci naka moom yàlla wujuduhu amam nga xaqiiqun xaqiiqun aji dëggu la nga gëm ni yi gëmee suñ borom mooy da ngay gëm ni am gi suñ borom am moom lu dëgg la lu wér la lu caaguñu dañuy wax ni yàlla am na te amut déedéet suñ boroom dafa am te amam googu lu dëggu la ndax asamaan indiwu fi boppam suuf sàkkul boppam doomu aadama sàkkul boppam dara sàkkul boppam kon ka leen sàkk kooku moo di suñu borom subhanahu wa taala Hmm. mu ni kon benn ngi noonu mu ni wa te moom suñu boroom wa huwa te moom yàlla xadimul aji jiitu la maa lahoo dit di ko ñeel bidaayatun ak tàmbalikaay dégg nga gëm ne itam suñu boroom subhanahu wa moo fi nekk bi dara du dara lépp lu am rek moo ko sàkk te bam fi nekk itam kenn du wax naan ak sàngam wala jamonoy sàngam la suñu borom amoon déedéet amul ak tàmbalikaay wa yàlla qadimun aji jiitu la maa lahu déddi ko ñeel bidaayatun ak tàmbalikaay yow mi jàng da jàng bidaaya mu ñu kon wa te moom yàlla xadimun aji jiitu la maa lahu déddi ko ñeel bidaayatun ak tàmbalikaay moom suñu borom bi fi dara nekkul la fi nekk te amul ab tàmbalikaay mu ne wa zu baqaain te boroomuk des la boroomuk des mooy bu lépp raafee tamit bu raafalee lépp moom rek moo fi def kullu man aleyha fanin wa yabqa wajhu rabbika dul ljalali wal ikram kon moom rek moo fi def wa zu baqaain te boroomuk des la moom suñ boroom maa lahoo déddi ko ñeel ndesam googu nihaayatun ak yemukaay bi fi dara nekkut moom moo fi nekk te amuluk tàmbali bu lépp raaxee ci àdduna ba dara desatu fi itam moom moo fi des te du amul yemukaay maanaam duñ dem ban naan buñ demee ba at sàngam suñ borom dootu am déedéet loolu jomb na loolu moom du am suñ borom moo fi nekk di fi nekk di fi nekk ba faw kon gis na ni waxagum nañ ñett yi nga xamante ni bokk na ci yi jullit bi war a fas te gëm ko te mooy gëm ni suñ borom ku am la muy benn ku am la ñaareel ba mooy mu gëm ni suñu borom moo fi jiitu lépp te amul ak tàmbalikaay muy ñaar ñetteel bi mooy itam mu gëm ni suñu borom subhanahu wa ku fiy des ba faaw la amul ak yamukaay muy ñett mu ni wa du xilaafin te boroomuk wuute laak te boroomuk wuute laak lil bariyati ñeel mbindeef yi maan boole teen muy ñeent gëm ne itam suñ boroom moo sàkk mbindeef yépp waaye ku wuute la ak mbindeef yi bokkul ñoom nuroowul ñoom ci dara moo sàkk mbindeef yi te wuuteeg mbindeef yi muy ñeent wa du xilan te boroomu doylu la bi nafsihi ci boppam jamaa boole na yiw yépp yiw yépp lii ñeel ma man sëñ Tuubaa bokk na itam ci li nit ki war a gëm mooy mu gëm ne suñu borom ku doylu la ci boppam wuliis mbindeef wala kenn suñu borom aajo woowul jëm ci kenn aajo woowul jëm ci fenn aajo woowul jëm ci lenn te ñépp aajo woo jëm ci moom ku ne soxla na li suñ borom yor muy yërmandeem ak xéewalam ak i wërsëgam waaye suñ borom soxlaalul kenn lenn ndax ku ne la nga yor moo la ko jox kon ba duuxi nan boroom te boroom ak doylu la moom suñu boroom bi nafsihi ci boppam jamaa boole na yiw yépp nag lii ñeel ma man sëñ Tuubaa wala lii jëm ci man man sëñ way maanaam téere bi bi ko sëriñ bi way fekk na boobu diggam ak boroomam jege lool mu ci daanile way yu mel nii nag di wane ni suñ borom mboolem yiw yépp jox na ma ko muy juróom wa waaxidun te kenn la moom yàlla maa illahu déddi ko ñeel minsaanin jënn aji ñaareel bokk boobu mooy juróom-benneel bi mooy nga gëm ni suñu borom kenn rekk la kenn du wax ñaari yàlla wala ñetti yàlla wala yàllay démb wala yàllay tey amut suñu borom moo fi nekk du dara bi dara dee dara moo fi nekk buñ demee ba dara doonatul dara moo fi nekk kon amul yàllay soowu ak yàllay penku yàllay ak yàllay tay yàllay bët gànnaar ak bu bët saalum yàllay bitim réew ak bu biir réew yàlla jenn rekk la kenn rekk la wa waaxidun te kenn la moom yàlla maa illahu léddi ko ñeel min saanin aji ñaareel la amul kenn koo xam ne dañ naan mooy ñaari yàlla mooy ñaareelu yàlla wala ñett déedéet yàlla kenn rekk la walam yazal yàlla jàll màgg na azimata nin di aji màgg ay mbir walam yazal te mosula deñ moom yàlla jàlla màgg na adima sa nit di aji màgg ay mbir naka jëkk ku màgg ku tedd ay mbir la moom suñu borom kon juróom-benn yàlla ku am la amam gi lu wér la muy benn ñaareel bi nga gëm ni suñu boroom moo fi jiitu lépp te amul tàmbali tàmbalikaay muy ñaar ñetteel bi nga gëm ni suñu boroom dafiy des ba faw muy ñett ñeenteel bi nga gëm ni suñu borom ku wuuteeg bindeef fii la muy ñeent juróomeel bi nga gëm ni suñu borom subhanahu wa ku doylu la ci boppam soxlawul jëm ci kenn te ñëpp soxla jëm ci moom muy juróom juróom benneel bi itam nga gëm ni yàlla kenn rek la amul ñaar amul ñett léegi juróom benn ngi noonu jàppal juróom benn yooyu dafa am yeneen juróom ñaar nag yoo xam ni bu ci nekk dafay jur benn muy fukk ak ñeent boo ko boolee fukk ak ñeent yooyu ak juróom-benn yi mu nekk ñaar fukki melo yi nga xamante ni lu nu war a gëm ci taala bu ko defee bayit bi ci topp da ngay jël sataru ñaareel bi maanaam xàbbub ñaareel bi nga ni tafarrada wéetoo na ويتونا الفرد ادي ويديا ويتونا بالذات دي ديلسي نك كا واي ويديك وي ماني تفرد ويتونا الفرد ادي ويديا الذي موي كاغا خامني قمع نطمنون ييب لي نيل ما من سنجبا ويتونا سي لان بالذات سي جيمبو والوصف اك ملوه وبالفعل أتجهد مع بولفهم بيك تفرد ويتون الفرد أجويدية الذي تموي كنا خمني خمع نطن النون يب لين يرم من سنك بار مم يالا مم ويتون بالذات تجمجة والوصف الملوى وبالفعل أتجهد مع بولفهم موسيقى ni mu mel maanaam melokaanam yi ak jëfam yi ak jëmmam ja da caa wéet amul kenn kenn kenn kum nuroog moom ci dara loolu pas-pas bu wér la bu bu ab jullit war a gëm ci boppam fas ko ci xolam mooy mu gëm ni suñu borom ni mu mel ci jëmmam ji mel moom rek moo ni mel jëfam yi itam mel ni moom rek mooy jëf suñu borom bu jëful kenn du jëf loolu da ko wéetoo moom suñu borom tabaraka wa taala kon mu jullit bi war a gëm ni kon suñ borom ku wéetoo ak jëfam yooyu la nga xam ni kenn fekk ko ca melokaanam ba ak jëmmam ji ak jëfam yi mu ni maa illahoo dénd ko ñeel fi zaati ca jëmm ja wal wasfi ak melawa wa fii afaalihi ak ca jëfam ya saanin jenn aji ñaareel wa yastafi dana tànn nag man saa ak ku ko sopp mu gëm ni suñu boroom jëmmam jooju ak melokaanam woowu ak jëfam yooyu ku ca wéeta wéet la amul kenn ku mel ni suñu boroom amul kenn koo xam ne da nga jëf ni suñu boroom suñ borom nag mooy jëf lépp lu dul yàlla rek jëf yàlla lépp lu dul yàlla rek jëf yàlla kon tafarrada wéetoo na alfardu aji wéet ja alladi ka nga xam ne xamaa not na noonu yépp lii ñeel ma man sëñ Tuubaa yàlla moom nag wéet na bi zaati ca jëmm ja wal wasfi ak ca melowa wa bil fi'li ak ca jëf ja maan mboole seen maa illahu deddi ko ñeel moom yàlla fi zaati ca jëmb ja wal wasfi ak ca melawa wa fi afaalihi ak ca jëfam ya saanin jënn aji ñaareel amul kenn koo xam ne naan bu yàlla jëfut moom mooy def wa yastafi dana tànn man saa ku ko sopp loolu daaneel way la sëriñ dafa xam ni mbir mu ne rek suñu borom tànn na ko tànn na ca la ko sopp boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko gënal ci bindee fi gënal ci nit ñi doomu aadama yi ci mbindeef yépp boo xoolee àjjuma moo ko gënal ci bis yi àjjuma moo ko yi Makka ak Madina gënal ko ci dëkk yi kon lu nekk rek tànn na ca malaayika ya boo demee sayyiduna Jibril alayhi salaam Mikail Azrail ñoo ko gënal ci malaayika yi kon lu nekk suñ borom tànn na ca la ko ca gënal léegi kon juróom-benn yi wax na la ñooy yan léegi nag muy ñëw ci fukk ak ñeent yi nga xam ne mooy mooy mottali juróom-benn yee ngir mu mat ñaar fukki melo yi nga xam ne mënta ñàkk ci jullit bi mu gëm ko ci sunu borom subhanahu wa taala mu ni wa qudratun kàttan wa qudratun kàttan maa iradatin ànd akum nammeel wajabataa war nañu ñoom ñaar mooy kàttan ak nammeel nga door a ci lëxoo gi lëxoo ñeel wa qudratun kàttan maa iradatin ànd ak nammeel wajabataa war nañu ñoom muy qudratu ak kàttan muy qudratu ak iraada lëxoo ñeel suñu borom wa qudratun kàttan maa iradatin ànd ak nammeel wajabataa war nañu ñaar lëxoo ñeel ñeel yàlla ubudalhu na nga ko jaamu moom yàlla waltu jillahu te nga màggal mu ni suñ borom dafa amee ni wax kàttan ngoo xam ni dalewul fenn yemul fenn amul nammeel mooy lépp lu muy def ci nammeelu boppam la koy defee waaye kenn du ko forcé ci dara wala muy lott ci dara ñaara ngoog ilmun ak dund suñu borom am na dund ko yell ca moom muy ñett xayaatun déedéet ilmun xam-xam suñu borom amee na xam-xam boo xamante ni moo yell ca moom mbir mu xamee na ko na mu amee dara umpu ci moom l ard lu ci ne rek na mu amee la ko xamee kon ilmun xam-xam xayaatun dund suñu borom am na dund ga yell ca moom dund goo xam ni dee du ca topp mukk mukk mukk am na dund koy yàlla ci moom maa samain ànd ak dégg suñu borom am na dégg koy yàlla ci moom wuute nag ak déggug mbindéef wa basarin ak gis suñu borom ma ngay gis lépp dara fàdduwul ci ci ay gëtam ci ay gëtam kon amee nag gis boo xamante ni bokkul ak gisu bindeef yi maa kalaamin ànd ak wax suñu borom amee na wax ga yàlla ci moom di wax wajabat war nañu li dil basar ñeel borom bindéef yi kon yii yu war la lu yell lu sax la wajabat sax nañu ndax wajabat war nañu waaye fii day amee maanaam sax nañu rek li dil basar ñeel borom bindéef yi kon juróom-ñaara bopp bi ci njëkk muy kàttan muy qudra iraadatu al iraadat mooy ñaareel bi ñetteel bi ilmun xam-xam suñ borom amee na ko ñeenteel bi xayaatun dund suñ borom am na ko juróomeel bi samu muy dégg borom am na ko juróomeel bi juróom euh, juróom-benneel bi juróom-ñaareel bi di kalaam muy wax suñ borom am na ko léegi nag yii ku mu nekk ci yow dafa am nuñ lay tuddee bu dee ilmun dafa ne ci yow dañ lay tuddee aalim عالم من لي تودي بودي حياه الادن دا فا نيك تي ياو حي من لي تودي كون سون بروم حيا مك دند لا سمعكم نيك يوم مي دغ سميعا من لي لي ووي سمع بكم نيك يوم سميعا من لي ووي اجي دغ ا <hesitation> اراده كوم نيك يوم مريد من لي تودي بصر كوم نيك يوم بصير من لي تودي اجي جيس kalaam ku mu nekk yow mutakallim lañ lay tuddee léegi nag kon juróom-ñaar a ngi noonu waaye bu ci ne day jël juróom-ñaar nee na suñ borom amee na ak dund amee nag kàttan amee nag xam-xam amee na nammeel amee na gis amee na dégg amee na wax nga ni wa kawnu rabbina ak nekkuk sunu boroom taala kawe na moom yàlla xaadiran di aji artam ndax yaa waxoon suñu borom amee na qudratu ku am qudratu ku amee melo woowu qaadir lañ koy woowe kon suñu borom qaadiran aji àttan la wa kawnu rabbina ak nekk suñu borom taala kawe na qaadiran di am na kàttan goo xam ni yemul dalewut fenn yemul fenn xayra muridin gi aji namm tey gën gi ni dafa amee iraada iraada ku mu nekk ci yow murid lañ lay tuddee suñ borom dafa amee ak nammeel mooy lépp lu mu bëgg a jëf rek dana ko jëfee na mu ko bëggee te lottu ci dara te kenn du ko forcer muy def dara wala muy wax dara suñ borom lépp lu mu def rek ci nammeelam la wa aaliman tey aji xam wa aaliman tey aji xam ndax ne man ko suñ borom na ilm mu xam-xam kon ilm ilm ne lay tuddee aji xam aji xam lañ lay tuddee mu ni wa aaliman aji xam xayyan tey aji dund moom suñu borom kuy dund ba faw la ndax yaa ni woon euh, xayaatun ak dund suñu borom da koo am kon xay lañ koy tuddee kon suñu borom xayyan aji dund la ba faw samian tey aji dégg moom suñu borom nee nga suñu borom amee na samu ku mu ne ci yow ak dégg samia kon suñu borom samian aji dégg la wahaba goog mayee na loolu daaneel waay la wa kawnuhu akum nekkam moom sunu borom xayra basirin di ngën gi aji gis wajaba war na suñu borom leewal nga ni dafa amee basar basar ku mu ne ci yow muy gis basir la tudde aji gis suñu borom aji gis la wa mutakallimante aji wàqante wala nga ni wa mutakallimante aji wax hadaaka yàlla la jubal allahu yàlla bi yum ni laa ilaha illa ci barkeb baatu laa ilaha illa ci barkeb laa ilaha illa allah yaa nam suñu borom dafa amee kalaam muy wax kalaam ku mu nekk ci yow melo ku mu sax ci yow mutakallim lañ lay woowee kon ñaar fukk yaa ngi noonu ñu limaat ko bi ci njëkk mooy da ngaa gëm ni yàlla suñu borom am na te am ngi lu dëggu la muy benn ñaareel bi moo fi jiitu lépp te amul tàmbali ñetteel bi boromuk des la te du am fu muy yem ñeenteel bi ku wuuteeg bindeef yi la juróomeel bi ku doylu ci boppam la juróom-benneel bi kenn rekk la moom yàlla amul ñaar juróom-benn ngi noonu juróom-ñaar nga ni suñ borom amee na kàttan juróom-ñett amee ak nammeel maanaam kenn du ko forcer dara mu def ko te ko juróom-ñett juróom-ñeenteel bi amee na ab xam-xam fukkeel bi amee na ak dund nga yell ci moom fukkeel ak benn amee na dégg nga yell ci moom fukkeel ak ñaar amee na gis ba yell ci moom fukk ak ñett amee na wax fukk ak ñett ak noonu léegi nag aji xam la muy fukk ak juróom aji dund la ba faw fukk ak juróom benn aji dégg la fukk ak juróom ñaar eh, aji gis la fukk ak juróom ñett waaw léegi aji aji gis la aji gis la fukk ak juróom-ñeent aji wax la muy ñaar fukk kon ñaar fukk yooyu ñoo ñooy ñaar fukki mel yi nga xamante ni waaw xaaja nañ aji namm aji namm la moom moom moom mooy fukk juróom juróom ñeent mooy suñu borom eh, aji eh, waaw aji gis la gis nga yell moom suñu borom juróom-ñeent ñaar fukkeelu mooy. mutakallim la muy aji wax kon ñaar fukki melo yooyu ñooy yi nga xamante ni ñoo yell suñu borom jaam bu nekk war koo fas rawatina jullit am nag yeneen i melokaan yoo xamante ni dafay dàqonte ak melokaan yii moo tax yooyu dafa jomb ci suñu borom kon ñaar fukki yaa ngi noonu mu ni wa annahu ak naka moom suñu borom tastaxiilu dana jomb alayhi ci moom addaadu zif sifaati safaanug yi lay melaw faltu jillu faltu jil nangeen ko ko jombale faltu jillu na ngeen ko ko jombale dégg nga wa annahu ak naka moom yàlla tastaxiilu dana jomb alayhi ci moom addaadu justifaati safaanub yi lay melaw faltu jillu na ngeen ko ko jombale melokaan yi mu wax muy suñ borom di ñàkk am wala muy koo xam ne dañ naan bi bi at sàngam la tàmbalee am wala bu ñu dee at sàngam am wala suñ boroom ñàkk kàttan wala mu ñu koy forcé ci dara mu di ko def wala suñ borom ñàkk xam-xam wala suñ borom ñàkk eh, nekk aji faatu wala mu nekk koo xam ne du dégg wala koo xam ne du gis wala koo xam ne du wax yooyu yii dafa jomb ci suñu borom dégg tax mu ne wa annahu ak naka moom tastaxiilu dana jomb alayhi ci moom addaadu justifaati safaanub yi lay melo faltu jillu na ngeen ko ko jombale léegi melokaan yooyu mooy yan mu ne ay li ma namm ci melokaan yooyu yi may wax ay li ma ci namm mooy adamun ñàkk ñàkk suñ boroom di ñàkk am maanaam naan rek suñ borom nit ñi koy wax amut ñàkk boobu loolu lu jomb la suñ borom lu am la kon ñàkk am lu jomb ci moom la muy benn maa xuduusin ànd ak sosu suñ boroom ñu naan at sàngam la tàmbalee woon a am loolu lu jomb ci suñ boroom la wa fanaa lanu la bind waaye wa un la woyu moo waral wa fanaa wa fanaa un jeex suñu boroom dem ba naan buñ demee ba jëm ni jamono suñ boroom dootu am loolu jomb na dégg tamaasulun yamoo muy yamoo bindee fi ndax ne nga suñu borom. ku wuute ak bindeef yi la kon muy yemook ñoom ci dara loolu jomb na maa ftiqaarihi ànd akuk aajowoom loolu itam lu jomb la iftu nan na nga loolu daaneel la suñ borom di aajowoo jëm ci kenn wala lenn wala fenn loolu lu jomb la loolu lu jomb la dégg taaddudun limu loolu tamit lu jomb la limu li mu mooy ñu naan ñett yàlla am na wala ñeent loolu jomb na ci suñu borom kenn rek la ajizun lot neewoon nga suñ borom dafa amee qudra neewoon nga xaadir la kon kooku suñ borom di jomb ci dara maanaam suñ boroom di lot ci dara loolu jomb na suñ borom muy lot ci def menn mbir moo xam na mën na ko rek loolu suñ borom jomb na ko karahatun sib sib moom itam lu jomb ci suñu borom la masalan suñu boroom ñu forcer ko mu def dara wala ñu forcer ko mu wax mu wax dara loolu lu jomb la lépp lu muy def ci na melam la koy defee ndax nee woon nga xayra nee woon nga xayra muridin ngën gi aji namm la kon ñu di ko forcer muy def dara te bëgg ko woon a def loolu jomb na ci suñu borom lépp ci coobareem rek la koy defee faalun lima yurid dégg nga sama mun tëx lu jomb ci suñu borom la neewoon nga suñu boroom dafa amee li nga xamante ni moom moo di samu neewoon nga kon suñu boroom samia la aji dégg kon suñu boroom di tax di ñàkk dégg ci dara loolu lu jomb la jëxlun réer muy xam suñu boroom dafa amee ilmu muy xam-xam woon aalim la aji xam la kon muy umpale dara di ñàkk xam dara loolu lu jomb kon jëxlun réer lu jomb suñu boroom la wa mawtun akug faatu wa mawtun akug dee loolu itam melaw dee di nekk suñu boroom lu jomb la melaw nga suñu borom xayyan aji dund la kon suñu borom di dem ba jëmmi jamono melaw faatu di lu jomb ci suñu borom la lu jomb la wa mawtun ak dee loolu lu nga xayra basirin gën aji gis la kon suñu borom di gumba di ñàkk a gis dara loolu lu jomb la ci sunu borom lu jomb ci sunu borom la maa bakamin ànd akug luux luux mooy muuma maa bakamin ànd akug indi moom la way indi waaye boo koy jàng bakamin ànd akug luux luux mooy ñàkk a mën wax muy muuma ne woon nga suñu borom mutakallim la aji wax la kon kay muy muuma maanaam muy luu loolu jomb na ci moom kon mel na ni suñu bindu tey foofu la yam lu ci jub suñu borom la subhanahu wa taala wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin